Macky nee na ñëpp ci war a jàpp koppar yi ci war itam ñu dugal ko ci ca boobale jamono la lii quotidien mi delsiwaat itam ca moomale ndaje di ñu xamal ne ñaar fukki milliards ak ñeent ci koppar yi CFA daanu ko dugal ci defarum vaccin bu ñëpp di jot ndax day jàppandi Bill Gates ci biir Le Soleil itam di yëgle financement wu ñaar fukki milliards ngir ñu defar ay vaccin ci Afrique Afrique googa njiital Union africaine Azali Assoumani nee na xale yi nu fi ñàkk ñu néew la di lu muy ñaawlu ci biir yéenekaay bi di Le Soleil mi nu yeggee itam kàdduy président Macky Sall mi woote ngir Afrique gépp dugal seen loxo ci wàllum science ak xeltu ba mën a muccali bakkan ci laas itam Macky Sall woowale woote lay jibal jëm ci njiitu réewu Afrique yi bés bi la jour nañu booba jamono cancer a ngi jeexal jigéen ñi ci Sénégal yéene kaay bi diñu yëgal ne at mu jot junni ak juróom-ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñaari kaawi cancer yu bees daanu ko nemmeeku juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak benn ya yéene kaay bi nee na ñoom ñépp dañuy faatu waral mu tuddee woppi cancer ci jigéen ñi assassin le quotidien booba jamono mel ni ku naan ñu ki wopp dëgg kay mooy enseignement privé ci Sénégal yéene kaay bi xëy ci jafe-jafe njàngale mooma ci réew mi xayma ca yooyele école privée téeméer boo jël juróom-ñeent ya amuñu autorisation juróom-ñaar ya itam ci téeméer boo jël amuñu déclarant la ca gën a doy waar bi ne ñay a jàngale fukk ak juróom-ñett ya boo jël amuñu diplôme Sénégal it ñetti fana ngi amul gouvernement direct news a def boobale taxaw seetlu ne Macky ba mu yeewee jëwriñam yépp yeesalaat kóoluteem ci premier ministre bi sénégalais yi dañoo yaakaaroon ne balay njeextalu ay bés bi daanu taxawal gouvernement bu bees yéenekaay bi dolli ca ne li yanu maanaa kay mooy bala ngay nga taxawal beneen ba nuppi réew mi quotidien feelu ko ne ko Macky Sall li tax fi mu ne mënagul a taxawal booba lépp gouvernement mooy dafa bëgg daal wàññi ñi nar a mer ak fippu waaye war naa baral jéego ndax ñi yëngu ci wàllu njàng ak napp geek mbay mi ñoom ñëpp ñoo ngi xaar gouvernement bu bees bi ñuy waaj a tabb enquête naan tabb gi du yomb ndax Macky ci pression la nekk yéenekaay bi yeggee ñu li Macky bëgg ak li gaay Amadou Ba yi bëgg tem war a tax ñu yemale ba ku gis ci sa bopp l'observateur moom gis ne Macky Sall dafa yéex lool ci jël ay dogal bokk na nag ci li ko waral yéenekaay bi ne ay erreur de jugement jugement maanaam njortulu amut waaye it ragal merloo ak fippuloo gaa yi ñàkkub kilifteef ci bi nguuram di jeex itam l'observateur ne bokk na ci li waral fi mu ne Macky Sall puus ak paas mel ni lu ko të Abdourahmane Diouf booba jamono ci booba la yéene ma ngay ñaawlu caravane am baak nan ko dakkale jafe-jafe yam ci parrainage bi ni nu ci seppee Ousmane Sonko la tam mu yëy yàbbi ci remaniement bi waaye ñu des ci Ousmane Sonko ak les mi ñuy xamal ne alxamis ji danañu ko létt mbaanu firiko ci seppi gi nu ko seppi ci liste électorale yi ndax ci la tribunal d'instance di jël dogalam dogal ba ka ko war a jël di àttekat bi di Sabasy Faye moom la source a xëy di nu waxi mbiram ne Sabasy juge la bu jaar ndakaaru jaari tribunal d'instance bu Koungheul waaye foofa da koo toj ci liggéey bu rafet yéene kaay bi ne liy firnde mooy ba mu fay jóge sax askan wa dañu koo defal feet doon ko béggal ndax rafet lu taxawaay ba mu fa amoon Ziguinchor it ba mu fa demee def fa dara lu ñaaw ndax yéene kaay bi nee na ba mu fa yeggee weerub mars moom mooy ki génnee ci kaso bi ndaw yan tegoon loxo ca manifestation ya amoon juin 2023 maître El Mamadou Ndiaye miñ teg loxo ci coowal ñetti milliards yu soxal ay boo Les Échos nee na daanu ko déglu ëllëg buñ ko dégloo ba nuppi nag ay awkaam fas nu yéene dugal càkkuteef ngir mu am bàyyib négandiku Mame Mbaye Niang moom bàyyee gut ndax yor yor bi nee na jokkoo naag juróom ñaari banque ngir mën a roppat ci Ousmane Sonko ñaari téeméeri million ak lu teg gannaaw la yoo ba doxoon seen diggante ci mbiram diffamation bi ci Prodac xalifa Sall booba jamono di wax ci mbiri yi Askan Wi dialogue bi ak caisse d'avance bi ci Vox Populi tànki defante nag la taxawee ndax moom Khalifa nee na dunu lonku ci Yewwi ngir seen candidature mën a taxaw taxaw te it ma ngay fàttali ni Yewwi Askan Wi amul benn candidat waaye juróom-ñeent la am te ñooñ ñëpp duñ leen tuumaal ni danoo war Xalifa it mel ni ku naan ñi jàpp ne dialogue bi war la nan xam ne duma ci jóg ndax nee na moom dafa gëm jaloog bu nu ko tëjoon sax ca kaso mën na faa toog di dialogue fauteuil yu président nag ci Sénégal Xalifa Sall gëm na ne dina ci toog ndax nee na incha allah élection yi di ñëw maa koy gagné te maay doon juróomeelu président bu Sénégal nguurug Sénégal kim dénk kàddoom di ministre Abdou Karim Fofana booba jamono ci réew mi quotidien mi ngi indi ay leeral ci coow li am ci gaz woon ca Derklé muy tontu maire bu Dakar ak njabootu ña loru te tuumaal nguur gi ne ba jëyee ja amee ba tey taxawaay wa war amuñu ko Abdou Karim Fofana weddi loola lépp ne di tax état mën a gula jël benn dogal mooy enquête dal nanu koy ubbi te sotteegut libération mel ni ku naan lii tàmbali bu sottee du baax ndax yéenekaay bi nee na gannaaw ba gaz kalaatee ca Derklé ba juróom ñetti nit ñàkk ca seen bakkan yeneen ñetti gaz amati na nu fii te yépp ci loo 28 booba ñu joxañ la amee yéenekaay bi itam yeggee ñu leneen lu doy waar li service de commerce yi nemmeeku gannaaw beneen fuite de course bu amoon ca Derklé ñaar fukki fan ak juróom weeru septembre bi nu weesu candidature am bi mu samp ci élection bi te dëggal ko moo waral Samba Ndiaye ñu tekki ndombal tànkam ca Grand Train du Sénégal xibaar bu nu libération yeggee yemook l'observateur di nu xibaar faatu ki ñu toftal ca commandant brigade routière bu Koumpentoum MDL chef Chérif Diarisso minicar moo ko mbëkk mu fa ñàkk bakkanam jamono ji ñu l'observateur di yeggee booba la ci biir réew yegg nañu ca lance gan war a jongante ak gayndey Cameroun ya jonganteb xaritoo woo wala jongante nag stade gis na ni bi ñu ko dëgmalee bu lay jàm moom dese naa nekk ci forme guy yeeg aada fas nuru lool ñu nekk ci forme fës ci xët gu njëkk sunu làmb yéene kaay bi ne seen combat bokk na ci yi ñu gën a bëgg jamono ji zos moom yéene kaay bi ne combat wu dimanche am bi passé daa mel ni bugg ca woon dara ndax bañ a bëre moo waraloon mu tappaleb accident buñ sukkandikoo ci sunu làmb mi ub làmb ji tey dig daje ëllëg incha allah yendu leen ak jàmm bu Sénégal